asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm seen chaîne Hawa conseil élevage seen conseillère d' élevage tey nag dinaa leen wax étape par étape nan ngay defaree biberon bi nga xam ne dangay utiliser lactosérum maanaam meew bi nga xam ne moom la vétérinaire di jaay bu fekkee ni sa añoo maanaam mbote bi yaayam dafa dee wala yaayam amul meew bu bëri wala sax amul dara ci meew. bul fàtte abonné si chaîne bi. activer cloche bi ngir mën a jot bépp vidéo bu ñu def ci wàllu élevage bu fekkee ci TikTok bi nga may suivre bul fàtte bés bouton cœur bi partager vidéo bi ngir ñëpp jot ci. buy defar biberon ak lactosérum bi li ngay njëkk def mooy raxas biberon ba mu set nga xam ne set na du am benn gàllankoor ci mbote bi soo paree nga utiliser ndox bu tàng ndox bu tàng bi mooy tax meew bi di seey du am grumeaux grumeaux yi muy am mooy donj donj yi yooyu mooy sonal xar yi. lactosérum bi nag mooy meew bi may utiliser mën nga ko am ci bépp vétérinaire mën nga utiliser 3 à 5 cuillères à café maanaam kudd bu ndaw nga def sa ndox bu tàng ngir meew bi seey nga dog see dolli sa ndox bu sedd lactosérum bi dafa nekk meew bu boo xamante ne mën na remplacer meewu yaay ji soo defee étape boobu ba pare da nga yëngal biberon bi ba nga gis ne lépp seey na amul benn grumeau amul benn donju donju nga vérifier bu baax ndax donju donju yooyu noonu mooy faral di metti biiru mbote bi di ko surtout indil ay jaare donc danga nga koy yëngal bu baax nga vérifier nombre de biberon bi ngay jox mbote bi nag dafay dépendre ndax mbote bi yaayam dafa dee wala yaay ji amul meew wala meew bi dafa ndaw ça peut de trois ba 5 biberons par jour soo leen amee ay laaj mën ngeen ko bind ci commentaire yi soo leen bëggee bokk ci groupe whatsapp bi mën ngeen ma contacter ci numéro bi adhésion bi 1000 francs la j'espère que vidéo bi dina leen amal njëriñ bu leen fàtte aimer vidéo bi partager ko ngeen ñëpp jot ci à bientôt